damay wax ne bisu tiis la euh, ndax euh, ñàkk nañu euh, góor gu amoon taxawaay ci wàllu politique doonoon voilà leader politique bu ñu ràññee ci réew mi ci at yu bare bare bare bare bare mu doon nitu conviction sañoon a bañ waaye sañoon a nangu it ndax compagnon wu président Macky Sall la woon depuis 2012 di ko jàppale bi rek biti Euh, li ma ci mën a seede euh, moom su ma su ma wayjur la xamoon bokkoon seeni activité politique euh, waaye it am na lu tuuti loo xam ne jot naa ko bokk ak moom ci espace politique bi dafa doon d'abord boroom xam-xam koo xam ne kii lu mu daan wax daf ko daan gëstu di fàttali ne journaliste la woon journaliste professionnel boo xam ne bi xam-xamam yaatu woon na daan na gëstu

Euh, mu donne aussi koo la gauche euh, figure historique la euh, depuis le président Senghor président Abdou Diouf président Ablaye président Macky Sall donc un grand patriote un citoyen qui ñu bu voilà conviction am kooku

Euh, di ci xeex yenn saa yi nag sax euh, voilà dog-dog daan la ci fekk waaye du tere rek ba tey ñu daan continuer euh, ba macha allah mu doon vraiment koo xam ne kii dinañ ko bind ci histoire politique u Sénégal. ba tey ci euh, wàllu CD euh, yéen ñi nga xamante ne ni gën ngeen koo xaman xam euh, moom parce que ci wàllu gëm-gëmam ci wàllu dundinu diineem est-ce que xam ngeen ci loo xamante ne ni ñun tam miinuñ ko ca bu baax a baax. waaw ci gëm-gëmu politique ci laa gën a mën a wax. Mhm. ndax am na lu ma ci fekkee ak toogandoog moom aussi conseil de ministres mu doon ko xam ne xalaatam toujours. Euh, ci nu nu mën a gën a jàppale ñi nga xam ne seen doole bariwut euh, maanaam loolu bokkoon na ci li ko soxal lool lool lool daanaka sax doxinu politique am euh, foofu la féetewoo woon maanaam ñi nga xam ne daal ñoo gën a néew doole doonoon na loo xam ne lii vraiment soxlaam la woon nu ñu leen mën a jàppale daan na ci xelal président lu bare bare ci programme yeeg politique yi nga xam ne mën nañ koo tëral ba ñooñu it gis seen bopp ci réew mi Euh, patriote la woon nitu conviction la woon euh, loolu moom mën naa koo ci mom ba nopi nak aussi